kuy ba tey ñu ngi ci seede yi tey wax na leen ko lu rëy moo wàcc Thiénaba olof naan ko bànqaas bu rëy fàqe na ci garab gi waaye nag loolu mooy neex yàlla li Baye Cheikh daan wax rek soo déggee ko faatu la ngay jëkk wax pour mu dem àjjana mu gaaw waxal inna lillahi wa inna ilayhi rajiun moo nu ko jàngal kii nu taxawal nag yaakaar naa ni li tax ñu jël ko intervention dinañ ko nañ ci xam dara mooy Euh, doomu Baye Bëkkëri Ñang la defe naa ni Baye Bëkkëri Ñang nag ak Baye Cheikh Ahmed Tidiane dunu ñaari jëmm benn jëmm lañ tey ku dem tey ci xolu Baye Bëkkëri xolam fees na dell waaye nag ànd na ko ngëm yàlla njaboot gépp a gi fi nag fa tabaarakallaa kii taxaw doomam la ñëwal ko waaye njaboot gépp ñoo nan kon moom la ñu sàpp suñu micro laaj ko tey salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. alxaaji Malick tey lu rëy xew na. Baye Cheikh Ahmed Tidiane mu bari jàmm ma. Mm. Baye Cheikh Ahmed Tidiane nekkoon juróom-ñaari xalifa Maam Omar Ndak dem na waaye Baye Cheikh Tidiane xaaritu Baye Bëkkëri Ñang dem na waa alhamdulillah dañuy wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun muy kàddu goo nga xamante ni saa boo déggee lu neex wala safaan ba mën nga koo yëkkati delloo waat ko suñu borom subhanahu wa sante waat ko yàlla xam ni suñu borom subhanahu wa taala bóor bu mel ni ki moom moo xool jaamam tis kenn si njabootam muy Baye si Ahmed Tidiane mu jël ko ñuy wax ni Baye si Ahmed Tidiane yàlla na ko yàlla xaare ajana yal na ko yàlla xare ajana ah ñi ngi koy masawu njaboot gi yëpp di andi njaalum sunu waajur sunu baay alxaaji Babacar Niang di xalifa si Ahmad Bamba Niang mu boole ñu ak sunu baay Omar Tall nekkal ko fi di porte parole kër gi boole ñoo ak sunu mag ak tund woowu yëpp waa gàdd waa bul fa ak ñun ko bokkal yëpp waa kër Yoro Safi ak sunu rak oustaz Marike di sunu xarit di sunu soppe moom tam fa tabaarakallaahu boole ñu ak moom ak sunu baay Isaaxa Ñang ak sunu rak Sëriñ Asan ñu àndandoo ñëw andi njaalam ah, ndax li ko gënaloon tey mooy mu ñëw teew bokk si jataay bi loolu mooy li ko doon neex ndax diggante Baye Cheikh Ahmed Tidiane ak euh, Baye Bakary fa tabaarakallaahu yaakaar naa ni ñëpp a ko xam ñëpp a ko xam képp ku fi xalifu sénéralu Thiénaba rek jaar fi si jamonoy ma Momar Talla ba nëgën ni xam nga diggante bi Sëriñ Bakary ak moom waaye rawatina nag Baye Cheikh mii baay Cheikh nag am na fu mu toll sëriñ bi sëñ bi nag képp koo xamante ne rek tey jóge nga Kër Ndiaga Sarr xam nga ne sëriñ Bakary tey bu doon fukk la mën na ni juróom ña dem na. waaw jaxasoo na waaye nag delloowaat boppam si sun borom subhanahu wa taala rek santaat yàlla bu baax xam ne yàlla moom lu ko neex lay def def na li ko neex démb si Tiwaawoon si sunu soppe sunu xarit Pape Malick si ñu ngi koy jaale ñëpp. di ko wax ni moom it yàlla na yàlla xaare ko àjjana tey jii mu andi ko Thiénaba Seck si borom alquranul karim di bàyyi si Ahmed Tidiane korite gi rek lañ mujj a toog uh, buntu këram man ak délégation bi nga xamante ni xalifa bi yónni nañu mooy sunu bàyyi alhaaji Babacar bi nu agsee bi nu toogee li mu njëkk def mooy delloo delloowaat ñu si alxuraan ni yéen waa Kër Ndiaga Sall a leen di mandal waaw alxuraan moo leen di mandal kon kaay ñu wax si alxuraan di si wax di si wax loo xamante ni mat na deux heures temps si biir alxuraan karim parce que mu ni li ma gën a neex mooy Mouhamed Gueye gat tem ngeen gis ko fi de danoo gestu rek gis Mouhamed si wetam mu ne moom de mi ngi nab nabi li may jàngale mu koy jéem a kon Baye Cheikh am na fu mu teg Kër Ndiaga saar waaye it am na fu ko waa Kër Ndiaga Sarr tegoon ndax yëg gu mu yëg Kër Ndiaga Sarr yëg na Kër Ndiaga Sarr bëgg na Kër Ndiaga Sarr mais fonk na xalifa bi muy Serigne Bakary ñoom ñaar nag dafa yàgg kon ñi ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla def jàmm baay seex yàlla fa mu fi mu jógee fa mu jëm yàlla na ko dàqal yàlla na ko yàlla wanaleeg baayam ya wanale koog maamam ja wanale koog rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon ñi ngi sant yàlla bu baax sëriñ Pape daal tey bés la boo xam ne bésu naxaar la alhamdulilah